seen beneen actu du jour ami internet de 24 actu bàkk ba jibatina fii ci réewum Sénégal gis nañ ne yëf ya ma ngay gën di yokk buñ sukkandikoo ci ki nga xamante ne nii moo di mari xemees Ngom Ndiaye doon ñu dégtal li nga xamante ni moo di xayma bés bi nee na ci junni ak ñetti téeméer ak fanweer ak juróom-ñeent ci ay test yu ñu amala juróom-ñeent fukki yi ak juróom-ñaar ñoo ci daal di ñëw positif maanaam amee jàngoro ji ci biir loolu nag juróom-ñaar yi ak juróom nekk ay cas contact ñaar fukk di ay cas issus de la transmission communautaire maanaam gox ya nga xamante ni nemmeeku na ca cas communautaire yooyu benn ca Sacré-Cœur Popenguine am lu toll ci benn Grand Yoff am benn Rufisque am benn Rebeuss am benn Parcelles Assainies am ñaar Touba am benn HLM am benn Almadies am benn Ziguinchor am trois Bignona am lu toll ci euh, juróom-ñaari cas mën nañoo jàpp ne fukk ak ñeent ci ay cas grave moom la ñu am ci service réanimation yi buñ sukkandikoo ci ki nga xamante ni moo di mari Khemesse Ngom Ndiaye nee na patient yi hospitalisé ña ngay am tan bi jàngoro ju diggee ci réew mi ak léegi mën nañoo jàpp ne Sénégal ay cas mi ngi toll ci ñetti junni ak juróom-ñetti téeméer ak fanweer ak juróom-benn moom lañu am positif ci réew mi ci biir loolu junni yi ak juróom-ñeent téeméer ak juróom fukk ak ñeent wër nañ ci ñeent fukk ak ñett génn ci àddina li ñuy saytu ci lali hôpital yi ngi toll si junni ak juróom-ñetti téeméer ak fanweer ak juróom-ñett ba tax rek ministre bi di ñaax askan bi ñu gën a fonk loolee nga xamante ne ni kër docteur ñu ngi koy digle ngir ñu mën a gaaw xeex mbas mu génn ci réew mu Sénégal ci coronavirus bi la ñuy desandi ba léegi ndax ginnaaw ba Touba jàllee si takkum masque bi ndakaar moo ci daal di topp buñ sukkandikoo rek ci RFM Abdoulaye Diouf Sarr di ministre de la santé et de l'action sociale daal dinay wax comité nation de gestion des épidémies bi nekk en rapport ak comité régional de gestion des épidémies de Dakar ngir ñu boole ngir lal benn pexe gën a yokk xeexum jàngoro ji ci région bu Ndakaaru ba tax tàmbali na tey si talaata ji administration yi lépp rek ngir mën a xeex jàngoro ji mu daal di gaaw génn ci réew mi buñ sukkandikoo rek ci RFM 2016 ba léegi ma nga Qatar moom l'ancien ministre d'État sous Maître wadd di Karim Wade daal nay jaaxle lool si coronavirus bi ba tax mu daal di indil autorité sanitaire yu dëkk bii di Sénégal lu toll si 500 kits de test rapide yu ñu defaree ca Corée du Sud lépp rek ngir xeex jàngoro ji mu daal di gaaw génn ci réew mi bu ñu sukkandikoo ci ëttu yëglekaay boobu lee di IGFM. dàq gi ñu dàq ubbiwaatu école bi ñu jàppoon ko niki tey ci talaata ji bokk na ci quarantaine d'enseignants yu jugee Dakar daal di leen defal test Covid 19 ca Ziguinchor fukk ca ñoom rek daal di amee jàngoro ji buñ sukkandikoo rek ci ministre de l'éducation nationale di Mamadou taal dogal bi la mu wundu rek moo di dàq lépp lu yokk virus bi ca école yi moo tax ñu daal di puusani ubbiwaatu école bi buñ sukkandikoo rek ci ëttu yëglekaay boobule di IGFM. ca diwaanu Louga la jubal yi la ñu faf nemmeeku rek moo di aw gréewu 48 heures ca transporteur yooyee nekk sa diwaan boobu lépp ngir jàppale transporteur interurbain yi nga xam ne jàngoro ji laal na leen lool ndax gisuñu benn yoon ndimbal ci autorité yi ña sa bokk rek di chauffeur clando yi transport Louga potu Lompul ñoo daal di bàyyi seen liggéey lépp rek ngir jàppale transporteur inter interurbain yi ki ko xamle rek di président des chauffeurs de Louga di Ousmane Sall buñ sukkandikoo rek ba tey ci IGFM askan way yeewoo setali bu bees naqar ak njàqare la ñu amee démb ci altine ji bi ay 10 heures jotee benn góor bu am juróom fukki at moo doon dox daal di jékki-jékki rek daanu daal di faatu buñ sukkandikoo ci JIC FM police ak sapeur pompier. ak agent sanitaire ñoo daal di ñëw jël boobu boobule ñu xaarandi rek ba xam fan la wànnent di mujjee kii gëtam ak waajoojulee lan moo ko faat ëtt yëglekaay bi génne yooyu la xibaar rek moo di Sénégal set ñu wax ci leneen soxal loolu wàllum société ci xuloo bu amoon ca estation sel bu yoof yamoo woon nag ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci octobre 2019 ba la ñu génn nu Diop rayoon Ibrahima Samb tiire woon ko bala Ibrahima di taximaan bañ rayoon dencoon nañ ko booba waaye ki defoon ñaawteef boobu mi ngi doog a janook àttekat bi tey jii ci talaata jii ca chambre criminale de dakaar buñ sukkandikoo rek ci ëtt yëglekaay boobu lee di IGFM lii rek moo fi ni woon ci ay xibaar dig daje ba ëllëg ak jàmm